jeunes yi ñaar la ba njëkk mooy patience àdduna sotti ci benn fan ñoom ñooñu wóolu ba dénkuñu ñetti weer lañu defagum est-ce que fa ñu teg fa ñu teg suñu tànk foofu la am déet loolu la ñu war a njëkk xool ñuy dem ndànk-ndànk bu soobee yàlla fañ jëm sénégalais bu ne dina gis boppam ci lañuy ñuy liggéey inchallah lañ leen di sant mooy ñu bañ a xeeb dara te it toujours ñuy laaj seen bopp lan la ñu war a mën a jëriñ suñu askan ñun parce que li yàq réew mi yëpp mooy li tubaab di wax égoïsme ñi fa toogoon nekk fi jàpp nañ ni bu ñu la dénkee sa yaaya liggéey comme ni ñuy wax sa ndeye liggéey donc da nga war a teral sa bopp tedd teddal teral sa say mbokk ca ca ci ban anam nga koy defee du salaire bi ñu lay fay de waaye alalu réew mi ngay teq suufu réew mi ngay teq oru réew mi ngay teq ak yeneen ak yeneen loolu moom moo yàq réew mi kon la don de soi pour la patrie bi ñuy wax man de jàpp naa ne mi ngi ci man jàpp naa ne mi ngi ci ñu bëri ci ñuy àndal waaye dafa war a doon loo xam ne dafa war a nekk ci sénégalais bu nekk ñam ngeen fi ay loxo gis ngeen li mu jur gis ngeen ay loxo yu yees yu ñëw te gis ngeen jéego yi ñuy teg bis bu ne ñu nga ci liggéey boobu